derrière euh, le Pastef oui amu ci ay leader yoo xamante ni hmm. suñu gisul seen tour ci listi bi daf hmm. leen def ay frustration man maa leen wax loolu maître Moussa Diop lan la xam nga hmm. yàlla a l'exception toujours qui confirme la règle <laughs> Déthié Fall lan ci Moussa Diop ci séance tenante la wax ne dinaa consulter suma parti pour ñu xam naka la ñuy taxawee ci ay kàddu yu rafet. Moussa Diop nekkoon na ci réunion boobu. nekkoon na ci réunion bi fa la ko fa la taxaw wax séance ne dinañu waxtaan ci li nga xam ni moom moo fi génne tey. kon loolu moo loolu moo lay wan ni ñoom décidé wu coalition bi décidé a ko proposé yéen Pastef. comment yow déggoo li ma dina dem consulter. c'est bien quand même ah, qu'on discute comme ça c'est beaucoup cohérent. Uh-huh. des dizaines de personnes ont pris la bas la parole au nom de dizaines d'autres personnes parce que ñëpp mënuñu woon wax. ña fa teew ñëpp ci seeni réaction en applaudissement et en euh, adhésion da nga koy def c'était manifeste hmm. tout le monde était en unisson avec Ousmane Sonko sur ce sur ce point là ña fa wax aussi am na ci ñoo xam ne la wax boo ko dégloo sax nga xam ne ñoom ñoo njëkk a xalaat li Ousmane Sonko proposé maître Moussa Diop aussi il a eu la sincérité d'exprimer moom gis-gisam te kenn bañalu ko ko le lendemain on a voulu le mettre en mal avec la coalition naan dafa génn coalition bi démentiral ko boppam xam na ñëpp ni génnuma coalition bi mais j'ai discuté avec les miens li ñu ma wax mooy nañu am liste dam nañ am nañ seen liste ñoom la la ca xew nag xew na ca mais au moins ils ont la ils ont eu la sincérité d'exprimer ça ànduñu ak ñun ci loolu def nañ la leen la dal seen xel c'est la même chose que notre frère Charles Émile euh, six mais à part ces deux gisuma ci keneen ko nga xamante ni tu as fait défection te y' a pas je vous le confirme je vous l' assure. d' la sortie de liste aussi vous nous verrez. pour pour ñu ñëwaat dinañu dikkaat dikkaat ci ci ci euh, mais yoo xam ne déjà surprise.